asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyoo di ziar waa sodan TV euh, di présenté wu man le docteur Aliou Gadiaga pharmacien installé kam dëkk euh, Malika nekkoon ancien président de l'amicale des étudiants élèves layennes du Sénégal maa ngi nuyu waa Soodaan TV di jiital ci nuyoo bi alxalifa suñu yaakaar tey le di Chérif Abdallah ayadallah wa nasru waxtaanal am yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal ndax suñu sag la am na yokk ko wér yokk ko sutura defal ko ahlu bayti sayyidina imaam alayhi salaatu wasalaam di leen nuyu di leen ziar waa Soodaan TV bi. ñuy waajal nag ñaam suñu conseil daal bi muy mooy yemboog bu ci samedi yemboog euh, ñaar fukki fan ci xam rek bés bu ni nag lan lay waaw bés bi euh, bés bu le le vingt maanaam bu ñuy euh, fàttaliku génn àdduna Chérif Ousseynou Laye

nga xam ni daanaka moo ñu wobat ci amical bi ñu daan def nag Chérif Ousseynou ñu amoon ko rek moom maanaam at mu jot bu appel ñëwee ñu tase def ziar ñu tudde woon ko ziar des étudiants et élèves layen du Sénégal ginnaaw ziar bi 31 décembre ñu koy organiser këram chaque année bu fi nekkee teewe ko bu fi nekkul it di ñu ñaanal nit ñu na ngeen koy def at bu jot donc kooku bu ñu koy fàttaliku ñun daanaka dañuy dañ koy fàttaliku dañuy fàttaliku suñu bii di fàttaliku suñu bàyyi di fàttaliku suñu soppe di fàttaliku suñu xarit koo xam ne li ko yàlla mayoon bariwul ñu ko may ci dimension ak taar ak bëgg nit ak xam doomu aadama ak xam àdduna kooku la ñuy fàttali ko di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk leeram yokk darajaam yokk martabaam ci yàlla muy Chérif Al Hussein di doomi maam Seyna Issa Rouhou di sëtub Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu tuddoon ko nooree ni ñaari leer la boole leeri maam Baye Laye alayhi salaam ak leeri maam Seydi alayhi salaam. ci diiru juróomi at diggante 93 ak 98 ñu daal di jiite kuréel bi nga xamante ne moo ëmb ndongo yi rawatina ak étudiant yi ak leneen ñu bëggoon naa xam ci digir boobu nag nan nga dundee wala su ko waaw dund bi du ci diggante boobu rek parce que dund ak dund ak shérif dañoo nekk xale nekk élève boobu nekk bu ñu étudiant ñu créé étudiants yi dañu amoon cellule bu mag bu ñu tudde woon les étudiants régulièrement inscrits mu am ñaari cellule parallèle benn bi tuddoon regroupement des élèves de Dakar benn bi tuddoon AL banlieue regroupe euh, association des élèves de la banlieue ñi nekkoon côté lycée Limamou Lay, ma bokkoon ci ñuy dem diko fekki bobu nek guñu étudiant ba biñu démé 93 li ma expliqué que ni Mamadou Lay Gadiaga bu nek États-Unis moom mo nekkoon président de l'amical, ci digg année bi Chérif waron fa dem ñu mayon étudiants yi ay ay ay visa pour ñu dem léegi nag ci la Mamadou Lay Gadiaga demee nekkoon président Asgay babar nekkoon euh, secrétaire xamu vice président moom it dem léegi mu bàyyi un vide nag ci lan ma copte en 93 grand yi daje ñoom Ablaye Ba ñoom Baytiir ñi ma leen di nuyoo au passage di leen ñaanal wér ak xéewal ñu daje nag jox ma présidence pour ma gérer ko ak ñi ma doon jàppale muy ñoom Momad sar nekk actuel président Nourul Mahdi nekk sar di ñoom lay Fat Fall ñoom lay Diagne nekk ñaari gériatre

buñ paree Chérif Ousseynou daal di jël def discours am ya nga xam ne buñ musaan jógee jàmmalaay rek ñépp dañuy daw yàkkamte àgg kër Chérif ndax boobu Chérif daawul jël parole ci cérémonie yi donc këram rek la daan jëlee parole prise de parole boobu nag dafa nekkoon événementiel boo xam ni kenn bëgg koo tar la buuxante bi nit ñi dañ daan xal ba duñ am fu ñu taxaw macha allah donc loolu buñ ko ci fàttalee suñu yaram day daw ak dugg ba na mu daan ñëwee ndeysaan sañse ba taar ba nga xam ne ñu bëri moom la nëbb ba xamuñu jëmm ji

waaw daf ko loolu laayeen comportement la moom daf ko wane parce que tubaab day wax ne la me la meilleure façon d'éduquer c'est c'est d'éduquer par l'éduquer par l'exemple moom ci boppam dafa wane ni laayeen comportement la ci bëgg boppam daf daan sañse ba nit ñi naa ko yow Chérif sa sañse mel ni dafa bëgg àdduna mun leen nag yàlla moo bëgg lu rafet man ma bëgg lu rafet yàlla moo rafet bëgg lu rafet dafa daan wax inna allaha jamilun wa yuhibbul jamaal waaye inna allaha nadiifun wa yuhibbul nadaafa yàlla dafa rafet bëgg lu rafet yàlla dafa set bëgg lu set te ku nekk xam na ni maam Seydi sañse lañ ko xamee woon magam ji Chérif Abdoulaye fu mu mus a génn Baye Abdoulaye mus na sol vax vax de laa la wax la sañsee def ci dara joo xam ne jàng buur ba mu génnee ñee soloon basin bi sax xeeb nañ seen basin ndax sañse Chérif Abdoulaye loolu mandarga la woon ci li nga xam ne moom la Chérif daal comportement bi nag daf ñu daan wax ni vous êtes des étudiants vous êtes des intellectuels mais nag am leen fulla sol leen seen jean braayu leen sol leen seen i basket mais nag fu leen fekk seen kurus na nekk seen poos maanaam matal li nga xam ne moom la ñu bàyyi laay déglu sa xutba ba wa uusikum bi ijtihaadi fi taatillahi wa rasuli na ngeen farlu ci topp yàlla ak yonente bi sañ seel defal lu nekk mais foofu julli jotee jullil bu tasab jotee tasabal bu wér di jotee wér dal donc daf ñu décomplexé dañu nekkoon milieu boo xam ne da nga pour nga affirmer sa laayeen sax da ko daan xaw a ragal mais defal nañu loo xam ne ñun ñëpp dañu mujj fier suñu laay bi ko wane mosuñu ko nëbb ba tey bii dañ ci dañ ko ci sant bi ko gërëm bu soobee yàlla di ko ñaanal yàlla. moom leneen loo xamante ni ko mooy euh, euh, mm. xam te ne jotuñu ko xam. Mm. ñoom en résumé soo leen doon wax ak waaw wax wax Chérif ci. résumé lay doon wala synopsis lay doon mooy résumé du résumé tënk lay doon mooy shérif nitu yàlla la nitu yàlla nag ça renferme tout mooy li nga xam ni moom la maam Baye laay digle maam Seydi digle ko xalifa yi fi nekkoon di ay magam digle ko shérif dafa tegu woon noonu ci yoon maanaam ku ko gis bëgg ko ku ko gis bëgg ko te daf lay yar ci diine daf lay yar ci julli daf lay yar ci woor daf lay yar ci fonk waajur mus na ma wax benn bis dama ñëw ziyaar ko ni ko ah bàyyi tey de indiwuma dara ndax damaa dem bay génn sama yaay woo ma am lu mu soxla ma jox ko la ma la waroon ziyaara mu jàngal ma aaya ba waxadaa rabbuka laa taxbudu illaa iyyaahu ba ca cat la mu tëje ko ni rab rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii saxiira ni ma waajur bu taxawee yàlla daf ni par priorité bu ngeen ma gëmee bu ngeen ma gëmee ba pare na ngeen fonk seen waajur bu ngeen ma gëmee dëggal yonent bi fonk leen seen waajur mu ne ma nag boo ko indi woon ma mere sa waajur bu soxlaa bu mu indil dara ñëwal ziaral ma loxoy neen loolu nag nitu yàllaa koy def te loolu la dundee ñun noonu la yàlla